بي جما خفت لكن ما موتا وكنت بما بماء العلي أتترى عفوت عن الأعداء ترا لوشما نفاهم لخيري سر سرمدا لسواد بسم الله الرحمن الرحيم بركة شيخ الخديم السلام عليكم ورحمة الله ما نيو بوك جولي yëpp rawatina mbokki taalibe yi jiital ci Cheikh Amadou Mountakha ñaan mu yàgg fi lool te wér am ay yëkkati kàddu yu gàtt rek ci sunu mbokk di sunu xarit di sunu lépp di sëriñ na mesere mu mel ne kàddu yu mu yëkkati woon eh, dafa am coow yu bari yu ca toppaat waaye li may njëkk a wax sëñ na mesere ne ko na santaat yàlla bu baax ndax doomu aadama di la muy yëngoo bis dana ñëw ca lay juum ñoom te mënta ñàkk te juumbul kenn ndax yaakaar naa bokk na li tax ñu wàcce ñu ci àdduna suñu njuumte moo tax ñu ñëw àdduna kon kenn suñu koo bañ waaye ko juum ba noppi jéggul yi def naa ne li war ab jullit moo ñu jéggal ko ndax suñ gànna yàlla dimbali na ko ñu ko bëgg sëriñ Tuubaa dundam gépp it mu jébbal ko sëriñ tubaa yaakaar naa koo xam ne ba nga tàmbalee wax ak léegi ñun ñii ko xam daa ànd ak moom ci bi ñu tuut tànk nga xam ne léegi mu mat fanweer don doon wax ci señ Tuubaa ak nëgë ni yaakaar nit ku nek jarignu nga ci dal na tay ji ño xam ne xam nañ seeni maam xam seeni señ àndoon nak señ Tuubaa lu ci bari ci sëñ Gana len ko dégge kon nañ bu waxee mel da ci am lum juum war nañ ko ko mën jéggal tay taxaw na jéggul kon nañ nañ dellu sal suñu xel bu baax te xam doomu aadama de li mu yëngu rek ca lay juume su ko defee noonu kon ñu bàyyante xel bu baax te jàpp naa ne sëñ gànn day mbooleem ñi ciy wax ñëpp ku ci nekk mën ngaa dugg ci ruq seedeel yàlla mi nga xam ne moom dara ump ko ne sëriñ gànn ku bëgg sëriñ Tuubaa la ku gëm doomi sëriñ Tuubaa yi la waaye ku fonk mag ñi toppoon Seexul Xadim la kenn ku si nekk ca ña toogoon foofee di wax bis ñëw na sëñ Gana toog ci sa ëttu maam wax fa waxal la ci sa maam lu sedd sa xol kon loolu rek waroon naa doy bu juumee ñu jéggal ko kon nag nan delloo si waat xel yi soppante waat tey muñalante sëñ gànn nañ dama naan la santal yàlla ndax lii nga def ku suñu borom dimbali rek moo ko man mooy nga juum jéggulu wax dëgg yàlla yaa ngi liggéey ci yoonu seexul xadim kon nag bu la kenn tax a teeg sag laxasaay continuer rek wuti ca kanam xam ne sëriñ bi moom seexul xadim mag ña ko toppoon ba mu defar leen ba ñuy dem lan ca am lan yóbbaale waaye jumtukaay yi leen sëriñ bi defaree woon ma ñu bàyyi fi te ku jëf la mag ñi doon jëfit sëñ bi defal lam defal mag ñi te yow sëñ Gana xam nga ne xëy la sëñ Tuubaa fàttiwu la loolu rek kon war naa doy war naa dalum xel nañ Mbàkke Njaay sa xarit maa ngi lay conseillé ci ne bul tontu bul wax lu ñaaw bul waxati dara fi nga tegoon sa tenkaal continue fi rek xam ni lii njuumte la woon nangu nga ko jégguluñ ko waaye yaakaar naa mbooleem ñi koy ñaalu de kenn ku si nekk fanweeri at yii dégg nga ci seen gaañ na mu wax ci sëriñ Tuubaa wala ci sa maam loo xam ne ba nga taxawee bay wax moom ngaa wax lu baax la nga doon wax ci sa maam te bañ a wax benn bis bu mu juumee doomu aadama yi ne ma yàgg naa koo wax mën ngaa nekk ci ñoom di leen bégal ñuy xàqtaay di fettasu di mbëkk di daanu waaye benn bis dong boo juumee ñu fàtte loolee lépp loolu moom yàllaa ñu ko binde waaye nag yow mi nga xam ne yaa xam li nga bëgg yooyu continuer ci li la war rek maa ngi yëglu bu baax lu ci waaye dégg te muy lu deung nang mako ko jéggal soxluwuma wax len luy ñaaw wala lo xam day laal pass pass doomu adama ndax pas-pas dafa for waye nang sañ naa sañ gànn di sama xarit di sama lepp sañ naa ko conseil sañ naa ko defal ma ngi jéggalu bu assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh نفاهم لخيري سر سرمدا لسود فان